Elhadj leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal di koy door ak yéenekaay yéenekaay gi ñu amal ko kay moo tiital nguurug Sénégal Sénégal ba ñu dellu ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall di xam ne amul genn risque goo xam ne dina ci dugg maanaam daal ngir sacrifier ñi nga xam ne rek ñoo di donga yi libération yéene kaay di ñu xamal la ne nag jamono ji test am jàngoroy covid 19 gi yéene kaay gi du ñu ne mbir yi kay yemul am na lu toll ci téeméer ak fanweer yoo xam ne jamono ji ñi ngi ci quarantaine yéene kaay gi du ñu xamal ne moom njiitu mi Macky Sall jamono ji kay ci tâtonnement xamal ne loolee tax kay njiitu réew dellu ginnaaw ci googale dogal lii si ko yéene duñu xamal ne jamono ji kay élèves yi nga a andi jafe-jafe loolee nag nekk loo xam ne rek dafa jaaxle Vox Populi duñu xamal ne maanaam daal fiasco total dogal moo ci am libération yéen kaay xamal ni banlieue kàddu yi nga xam ne kay yëkkati ko moom kay dafay xam ne kii nga xam ne rek mooy jëruñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllum njàngale moom kay dafa waroon a tekki ndombal tànkam ci échec total ji nga xam ne rek am na ci wàllu njàng mi l'observateur yi yéen du ñu xamal ne coronavirus kay na ko àndil réewum Sénégal rawatina ca wàllum koom-koom ba ñu daal di lambi l'observateur yi yéen gi du ñu xamal ne soxna Oumy genn soxna goo xam ne rek faat ci Touba moom kay ca morgo fa lañ ko fekk cuqati si ak yenn ci ay këram yoo xam ne rek dañu ko yóbbu